ñefe nañu ba toll fii nag euh, du ñu ñëw euh, këpp suñu yàlwaan donc euh, yaakaar naa ne ñoom ñëpp ils sont conscients de ça liggéey nañ ci loolu pour quand suñu équipe ñëw def fi résultat bu baax résultat bu baax mooy qualifier équipe bi baax qualification boobu lu am solo la ci football sénégalais parce que luy relancer football sénégalais la petite catégorie gëjoon nañu qualifié bon daaw c'est vrai que demoon nañu euh, Coupe d'Afrique mais boobu du jaaruñu qualification dañu qualifié d'office mais yaakaar naa ne fi mu nekk daal li ñu a daal mooy euh, xale yi pare nañu lépp lu ñu war a def def nañ ko léegi li si des dañ koy bàyyeex bàyyeex yàlla match aller bi ñu gagné 3-1 pour ñun fàtte nañ ko parce que moom nañ leen gëmloo xam loo nekk match boobu jeex na léegi beneen match moo am te ci biir match de football 90 lu nekk mën na ci am donc ñun dinañu ñëw lépp lu ci war dinañ ko def bu ñu yaakaar nag comme ni ma ko posé sànq ci nasaraan que dañuy ñëw taxaw ci gannaaw parce que gagné nañu 3-1 défendre parce que boobu xaru lay doon xaru euh, dem taxaw ci gannaaw di défendre loolu xaru la parce que ñii ku leen xam-xam ne que ay football kat nañu ñun dañuy ñëw défendre suñu chance c'est-à-dire aujourd'hui ñu man je dis que suñu équipe bi war na mën a gagné gagné donc mais nag duñ ko defee ci yàkkamti ci lu mu mënti doon dañ koy teylu ba saa yuñ ko amee ñu def ko donc yaakaar naa ne ci fànn yëpp pare nañu. leen leen rek moo ci des mooy xeex ci biir terrain bi match kenn du ko gagné ci biti ci terrain bi la yaakaar naa ne joueurs yi comprendre nañ ko te lépp luñ ci def war a def dinañ ko def dañ ci def suñu kant lay kattan pour vraiment match bi nu am ci nam pour euh, football Sénégal yëpp.